RFM Matin. émission bii yee waa Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan euh, Barthélémy Diaz asalaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. yaay meeru Mermoz sacré bala ñoo sori ci waxtaan wi ak euh, coowal euh, tabax yi ñu doon amal ci corniche bi nga aaye ko démb ba police am ci yoon dañu la bëggoon njëkk laaj sa gis-gis ci li ñu seetlu biig ci dëkk yu ci mel ni tuuba Mbacké ba Tamba ak Kees. gone yi génn ci mbedd mi ne dañoo maar ci euh, couvre-feu bi euh, ba ay yàqu-yàqu am ci nan ko jàngatee. waaw euh, xanaa bi ci am tiitange parce que ñun ñëpp jàmm la ñaan yàlla ci jàmm la ci lépp xaj lu ma xalaat ci ci lu gàtt mooy je pense que le président Macky noor na jéem a gestu. lu ñu gis ñun ñëpp dem ba biir Sénégal euh, jëm ci euh, waxtaan ci euh, ak gouvernement bi ak xool tamit naka lu ñu mënee dem vers un déconfinement progressif parce que président Macky Sall ci boppam je pense que du ma wax ne ni que président Macky Sall dafa démissionné kooku du ma ko wax parce que ëpp na wax wante je pense que président Macky Sall bu mu demee ba ne mën na ubbi yenn lieux publics yi Euh, moom ci boppam je pense que dafa joxewoon woon benn signal te lu gën a bon ci homme d'état mooy nga nga signaler gauche ñëpp am yaakaar nga dem droite donc euh, moo tax ma wax na ni que peut ci dëkk yooyu président daf noonu xolaat euh, taxawaayam parce que effectivement métti na métti na nit ñi mënuñu dem nit ñi mënuñu dikk ci dëkk bu mel ni Sénégal nit ñi di dëkk di lijjanti parce que loolu mooy dëgg Sénégal euh, nit ñi duñu yeewu nii am ay xëy am euh, euh, comme ci lu ñuy gis États-Unis wala lu ñuy gis France un minimum de sécurité sociale nekkul ci dëkk bi dëkk bi fi nit ñi dañuy dañuy dañuy taxare di seen wërsëg. Mm-hmm. donc tere ñi ñi ñuy dem di leen di tere ñuy dikk kooku day xaw a day xaw a day xaw a jafe depuis presque maintenant ñaari weer moo tax man personnellement lu ma mën a ñaax président Macky Sall mooy na jéem a xool. naka la mën dem vers un déconfinement progressif et def ko de la façon la plus sérieuse mais déconfinement si jamono ji ñu toll ci feebar beeg yooyu est-ce que du gën a yokk njombe feebar bi gën a law ci biir réew mi li ñu doon bañ ah, daanaka mu kon moo nar a am waaw mais lan mooy xel est-ce que xel bi tamit mooy continuer di bàyyi xale yi di def lu ñuy def nii parce que man mii par exemple maa ngi ci mbiru mbay su ma xoolee fu ma nekk nii ah, su ma côté yooyu côté Mboro am na ñu bëri am ay nen di liggéey ay ay nen mënuñu ko indi Dakaaru kooku tamit métti na da ngay dem tey ci ci yenn gox yi di gis suñu yenn mbokk yi euh, yor ay ay euh, ay jur nga yor sa nag euh, nag nag bi di jar lu ëpp ay cinq cent mille francs mënoo ko jaay cinq cent mille ku la ku la doo gis sax ku la ci fay cent mille te il faut nga dundal sa njaboot donc loolu yëpp c'est des réalités yi nga xam ne tamit il faut ñu mën ko jël en considération tey je pense que wax dañ ko waxaat ko Euh, mbas bi euh, loolu yàlla euh, moo ñu ko teg yàlla moo ñu koy tegil wante lu am ba am ñu devons vivre avec parce que tey suñu xoolee tey paludisme ñaata doomu aadama ñooy dee ci àdduna bi ndax paludisme te pourtant on vit avec depuis ñaata at donc lii tamit il faut ñu jàng xool nu ñuy dundee ak moom parce que du lu nga xam ne ni dinañ am benn vaccin suba wala dinañ am benn benn benn benn médicament ginnaaw suba donc ñi ñi tamit téye leen Euh, di leen di xañ ñu mën a dem di dikk tamit day xew a jéggi dayu ceci aussi étant dit euh, waxuma nañu ubbi lépp parce que lu am ba am mooy euh, doomu jàngoro boobu ñëpp xam nañ que day rey ay nit te mi ngi fi te du caaxaan wante tamit def couvre-feu état d'urgence depuis deux mois teg ci nag état taxaw fale mais mën nañ dem ubbi ji jumaa yi wala ubbi jàkk yi état dem ba ñu ne ay dañuy ubbi école yi dafa doon lu sérieux da danga da gis ni dogal yi dafa am ay safaan yu ci am dafa am ay contradiction mais caaxaan na ci nekk ci lu bëri te gestion état bi ci crise du Covid 19 mais man waxoon naa ko duma ci xas président Macky Sall parce que président Macky Sall ci boppam jamono yi ñu toll nii bu ko mënul jàppale bu ko ci bu ko ci xas wante nag euh, euh, wax dëgg yàlla euh, lu ñu doxalee ci crise bi des na. des na ci ci ci ci euh, ci euh, ci sérieux des na ci euh, ci Pastef des des na ci pas-pas xool leen ba tey ñu ngi lem ci presque ñaari weer depuis bu ñu déclenché seen affaire u ay couvre-feu état bu mënul joxe ceeb diwlin suukar te loolu la diggoon askan wi mais kooku c'est un sérieux problème ci lu mel ni état mais dina dina dina yegg de non wax dëgg yàlla mu ngi yegg damay wax damay wax dëgg rek te yàlla tax Euh, ceeb yi ñu ngi commencé di egg ci ci gox goxaat yi wante mais après deux mois lii amatul benn sens parce que fa mu nekk nii nit ñi fàtte nañ fàtte nañ sax waxu Covid 19 nit ñi tey lu ñuy wax nii mooy jéem a xool lan la ñuy def pour mën a delluwaat ci euh, ci la vie normale nekkatuñu ci di di donc état. mais est-ce que loolu mën na am delluwaat ci vie normale daa mel ni dara xewul ak euh, fi mbir yi toll saa su ne kaay di gën a yokk jàngoro ji gën a law ci réew mi. non su ma waxee la Euh, ñi ñu dem liggéey yi ñi dem jàngi école euh, la vie reprend son cours waxuma que loolu dañ koy def de seul coup parce que day nekk de façon progressive mais tout de même Babacar naka la état mën a déclencher déclencher état d'urgence ak couvre-feu depuis ñaari weer lu mu diggoon askan wi ba tey askan wi gisu ci boppam teg ci état taxaw fële ne mën nañ delluwaat ubbi lu may ubbi lii ubbi laa après état ne leen mënoo dem mënoo dikk mais loolu ce n'est pas sérieux Mm-hmm. te naa ngi téeralaat wax ci nee naa état du caaxaan parce que nit ñi su ñu demee ba jiital la mais dañu am yaakaar ci yow wante yow ñu am yaakaar ci yow waxuma da nga dellu ginnaaw wante mel ni da ngaa dellu ginnaaw nga dem ba ci biir nag bëgg a continuer di wane autorité loolu c'est une contradiction autorité moom dama damay dérelaat wax ci nee naa autorité da koy mët autorisé nag mooy kuy am yaakaar ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy dey kooku dee demee ci ndigal wante Sénégal aw ma yaakaar ne ni que sénégalais yi dañu fal président buy demee ci ndigal président day nekk autorité day assumé wu lu am mu nangu wante yu jëm gis nañ la crise état di wax lii ñeneen di def lu leen neex wala état di wax lee ñi ñi di ñi ñi ñi di ci teg batt gis nañ ko fii Covid 19 bi gis nañ lu nekk Sénégal ñi ñi di contredire l'état du Sénégal donc ça veut dire qu'il y a un problème d'autorité. Mm-hmm. réalité qui est là. Mm-hmm. autorité boobu nag tey moom moo nar a jéem a jéem a xool naka la mën a dem vers un déconfinement progressif et responsable en collaboration avec les autorités sanitaires. yow yow maire nga ci ci région bu Dakar est-ce que couvre-feu bi nga xam ni yaak ñi nga jiite seen maire yéen a koy dund gis ngeen ci euh, seen bopp euh, ak njëriñ. couvre-feu kenn mënul wax ne ni que amul njëriñ parce que su amuloon tey je pense que cas yi dañuy gën a yokk mm-hmm. waaw maintenant ceci étant dit. Euh, lii ba àdduna nekkee àdduna ba tey lii mooy première fois bu doomu aadama di dund lii mooy daanaka yaa ngi xeex contre un ennemi invisible xamoo ko euh, xamoo kañ la fi jóge euh, teg ci nag état du la wax loo mën a dégg te maa ngi déralaat wax ci nee naa États-Unis par exemple da ngay toog ñu ne la toogal sa kër wante lu nga doon fayeeku loolu la état di fay da da daru ci manqué wante même ci dëkk yu mel noonu. doole yemul nag. doole yemul dëgg la wante parce que doole yemul da ngay xoolaat nu ñuy demee parce que tey ay dëkk yu bëri ñooñu amuñu sax ay masque xamuñu liy masque wante foofu yàlla moo fay def sutura ce n'est pas la peine ñuy jéem a xam lu tax ñooñu euh, doomu jàngoro boobu sonul leen parce que yàlla ci boppam mooy àtte ci yërëmandeem yàlla mënul gis nit ñu nga xam ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw mu leen di teg yenn nattu yi mënul nekk la preuve xool leen tey nekk Europe xool leen tey nekk Amérique xeetu médecin bu nekk am nañ ko xeetu hôpital bu nekk am nañ ko wantee foofu lu fa am dafa jéggi dayoo ñoom seen bopp mënuñu ko expliquer dem nañ ba Afrique daanaka hécatombe moo fay am man daanaka musiba moo fay am wante yàlla wane boppam kon nag ñun lu ñuy ñaan yàlla mooy na état Sénégal waxtaan ak docteurs yi même suñu déconfiné wulee ci Sénégal bi yëpp ñu jéem a xool yenn dëkk yi par exemple tey am na ay dëkk yu nga xam ne nii wax dëgg yàlla lu ñu leen teg dafa metti parce que par exemple nu ñu gisee Dakar cas yu ñu nu ñuy nu ñuy law biir dakaar dañ ko fa gisee donc yenn dëkk yi mën nañ je pense que mën nañ dem vers un déconfinement progressif mooy comme li ñu doon gis France waxuma lépp lu ñuy gis France dañ ko fiy def wante France ba ñuy wax waxu déconfinement dañuy wane ay zone ne fii verte la fii orange la fii rouge la xam nga tey bëgguma tudd tur wante suñu xoolee Ndakaaru tey man particulièrement suma district wax dëgg yàlla ñun ak waa Dakar Plateau ñun ñooy tey ñun ñooy ñun ñooy dévancé ëllëg tam ñooy dévancé donc ñun. Hmm. daanaka suñu doon def ay couleur ñun ñooy rouge. Hmm. mais am na ñu nga xam ne ni ay orange lañu am na ñu nga xam ne ni ay verte lañu mais ñooñu xanaa mën nañ leen may sax couvre-feu bi commencé minuit ñu xam ñu ñu xaw a nooy tuuti. Hmm. ñu ne leen par exemple yéen week-end vendredi samedi dimanche ma ngeen dem mën ngeen ñëw. loolu mën a nekk mais am na ñu nga xam ne ni ba ñu déclenché couvre-feu ba tey fu ñu nekk mënuñu fa jóge loolu metti na te ñooñu dañu am njaboot am ay responsabilité te hmm. maa ngi jiralaat wax yi nee naa lu état digoon askanu Sénégal askan wi gisu ci boppam waxuma nag état dañu daw li fu cuune wante lu am ba am mooy askan wi gisugu ci boppam donc nag ñooñu Euh, fu ñu amoon yaakaar comme yàlla dafa ko fa sutura mais xanaa nag ñu may leen ñu mën dem dàq ci seen wërsëg. Mhm. ginnaaw euh, juróom euh, ñaari minute moo ñu dese ñu sóobu nag ci coow li nga xam ne ci la gis dëmb nga ànd ak sawa waa mairie dem fekk nit ñuy tabax ci corniche bi ngeen aaye leen ba nangu matériel police duwal ci loxoom sax am kenn ci ñiy liggéeyee ndoog yow ku ñu woolu police tey nga ni sax da nga ca demaale ca police googa ci tënk mbir mi nu mu demee. waaw lu ma bëggoon d'abord njëkk a wax mooy euh, dama koy ñaawlu dama koy ñaawlu parce que je pense que amul benn sénégalais buy euh, buy rafetlu tey lu ñuy dégg ak lu ñuy gis ci lu ñuy woy le littoral mooy daanaka euh, suuf bu askanu Sénégal moom te bu jàkkaarloo ak géej gi parce que loolu commencé gul tey commencé gul ci ci ci ci ci nguuru président Macky Sall loolu yàgg na am Sénégal wante lu am ba am. mooy dafa amoon lu président Macky Sall diggoon askanu Sénégal ne leen gestion sobre et vertueuse wax leen tamit la patrie avant le parti wante tey du ñuy gis loolu méngowul ak lu président diggoon askan wi parce que tey lu ñuy gis mooy gestion sobre et vertueuse boobu bu ñu doon woote mais loolu mënul ànd ak nguur gi di toog di seetaan ay ay ay ay ay ay ay ay samba boy parce que loolu mooy wax ci ñuy tong tonge as euh, alalu askanu Sénégal ñu ñu mu Barthélémy Dias ñan la ñan ñooy ñan lañ jox suuf si ñu ci tabax. d' abord lu may njëkk a ñaawu d' abord mooy ñu ñuy woy des fonctionnaire de l' état du Sénégal ñuy liggéey ci mbiru suuf ñoom ñoo yor suufu Sénégal ñooñu foog ñu xoolaat seen bopp. parce que ñooñu mooy ñu nga xam ne ni am na ay journalistes yu bëri ñu fi def ay enquête ne dëkk bi dafa am ay fonctionnaires ñuy liggéeyal état du Sénégal nekk ay milliardaires loolu ñëpp d' nañ ko mënul nekk. ça veut dire nit da nekk milliardaire parce que ndono la buy jóge ci ay wujur wala ñàkk la wala yu mel noonu wala nga gagné loto wala yaa xam wante mën nañ sax comprendre mu am benn ci fonctionnaire wala ñaari fonctionnaire ñu nga xam ne ni yàlla daf leen defaral sutura ñu am ci alal wante mais dañ leen ne fonctionnaire yi te bëgguma tuddu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ciblé ay poste wante ñooñu foog ñu xoolaat seen taxawaay parce que lu ñu nekk nekk Sénégal du dëgg du yoon lu ëpp nag tuuru parce que lu am ba am mooy suuf si dañ koy tong tongee Sénégal. mais mais ñoom bu ñu jotee suuf soosu dafa am ñu leen ko jox li laaj bi mooy dans quelles conditions la leen ko joxee ak lan moo waral ñu jox leen ko laaj bi mooy loolu. Euh, Babacar ñooñu dañuy toog seen biir ñoom ñoom neen seen biir kenn du ci rax ñu ne dañuy def lu ñuy woy CCOD. mooy commission de contrôle des opérations domaniales d' abord loolu suñu toogee ñoom seen biir di ko def jaaduwul parce que tey mënoo ne da ngay jël ay suuf di instruire ay dossier te mairie bi fekkewul fu ngeen di instruire dossier d' abord loolu mooy lu njëkk te mairie fii biir Ndakaaru depuis 1996 commune d' arrondissement am na ñoom seen biir musuñu nangu mu am benn modification ci ci ci ci ci procédure bi pour mairie yi bokk ci lu am bu am mais ñoom suñu toogee seen biir ñoom seen biir ñooy séddale suuf bi seen biir te nag dama bëgg Sénégalais yi déglu ma saa bu ñuy séddale suuf bi seen biir dañuy commencé di jël ay nit ñu am Sénégal tur moo xam ay kilifa diine moo xam yenn magistrat yi ñoom la ñuy njëkk séddale ndax ëllëg coow su amee ñu ne ah fii bu fi kenn wax ndax diw mi ngi fi loolu nag dafa dem nag ba commencé soof nit ñi suuf soosu suñ ko amee. la plupart des gens loolu mooy dëgg bi la plupart des ñu nga xam ne ni dañuy nekk ay attributaires soi-disant mooy ñu nga xam ne ni ñoom lañ koy jox ñooñu duñ ko sax yëg duñ ko sax yëg dañuy dugal ay lu ñuy woy ay carte d'identité fictive te ñu ngi may dégg ñu ngi may dégg te le dernier cas ba nga xam ne ni sénégalais yi déggoon nañ ci ñu ciy wax wante sénégalais baa ñu ci xel mooy euh, ku fi nekkoon directeur cadastre ñu ko doon wooyee maa ngi jógoo ci tur bi te mooy Tahirou Ndiaye ba ñu ne Tahirou Ndiaye euh, daf fi luubal ay suuf dañ koy tëj kaso Tahirou Ndiaye dañ ko tooñ ba ci kanamu yàlla parce que kooku suñ koy tëj kaso daanaka képp ku doon toog CCOD da ngay tëdd kaso te euh, directeur général u impôt et domaine ci la bokk euh, euh, président Macky Sall bu mu ñëwee lan la def ci directeur général des impôts et domaines mooy Amadou baa bu fi nekkoon daf ko jël nommé ko ministre de finances naka nga mën a téye Tahirou Ndiaye nga ne yéen na ngeen jël suuf suuf suuf Sénégal yi ngeen tong ko mu nekk commission nga jël ci benn nit kese kepp rek dong nga tëj kaso kooku ci moom kese mënul jël suuf si di ko tong-tonge commission la woon te ñoom lu ñuy def tey mooy dañuy def lu ñuy woowee ay consultation à domicile duñu dañuy bind lu leen neex te su ñuy def attribution dañuy bind Babacar Sall et consort donc Babacar Sall et consort boobu consort boobu lépp ngi ci te dëgg bi mooy lan mooy état du Sénégal amul droit wu jaay suufam donc état du Sénégal day loué suufam léegi yow Babacar da ngay ñëw ne man a tabax benn clinique wala man dama bëgg a tabax sax suma kër nga yëkkat nga nga yëkkati sa dossier jébbal jël dossier bi instruire ko. tudd nga tudd Ba euh, da nga euh, jàpp ni dañoo war a enquête ci moom ci euh, ba mu yore yëf ci mbirum Tahirou Ndiaye googu. dama ne commission de contrôle des opérations domaniales laa wax. ce n'est pas une personne. président Macky lañ may dégg. waa CENTIF ak may waa CENTIF ak may dégg waa OFNAC ak may dégg ñëpp ak may dégg commission du nit commission mbooloo la ñooñu naka la ñu mënee toogee seen biir jël ay suuf di ko saax-saaxee di jàpp ci benn nit moom kese moom rek moom dog ñu teg ko ci kaso bi commission yooyu nag lay doon wax noonu ñoom su ñu nekkee ba di attribuer ay nit c'est-à-dire que ñooñu suuf soosu jënduñu ko dañ koy loué mooy lu ñuy woyee bàyyi état da leen dama laa jox suma suuf jox la ko trente ans wala quarante wala cinquante ans dama la koy loué mais état nee na suuf soosu suuf jooju mënoo ci am titre foncier tant que defoo lu ñuy woowee mise en valeur te démb fu ma nekkoon noonu ñooñu dañoo am titre foncier titre foncier ci suufu état fu nga xam ne teguñu ko benn brique titre foncier boobu soo ko yóbboo banque ñu lebal la xaalis gis nga quatre mille mètres carrés yu nga xam ne ni moom laa demee démb foofu foofu di ko ñaawlu mètre carré bu nekk mi ngi jar un daanaka quatre mille mètres jooju. waa jooju ne moo moom suuf soosu génnul dërëm te tey su demee banque ak këyit boobu quatre milliards la koy banque di jox ñeenti milliards loolu moo am Sénégal ay nit ñu tëju seen bureau. mais problème bu mel noonu yow en tant que maire am nga am na yàlla kilifa yaa ngi fi autorité administrative yeeg euh, su préfet sa diwaan ak yooyu noonu nga leen ko au lieu nga bëgg ñëw fajal sa bopp ne par la force liggéey bi dañ koy arrêté loolu dafa ngay jë mujj jalgati yoon même bu fekkee ne am dëgg. dama euh, <clears throat>

mais Descos su mënee ñëw dugg di saytu ay chantier kan moo fal Descos kenn faru leen Descos dañ leen dañ leen jébbal benn mission ñun dañ ñu fal ñun loi moo ñu tënk moo ñu may sañ ñu def lu ñuy def man dama dañ ma laaj gendarmerie ne ma lu tax nga jël ay saaku ciment teg ko fourier mais su ñu demee ba wooyee fourrière municipale fourrière municipale loolu lan lañ fay dugal du ay nit lañ fay dugal. Mm-hmm. waxtaan wi am na solo lool Barthélémy Dias ci kanam euh, di nga kon euh, topp loola ak euh, ak police mi woolu kenn ci say collaborateur ñu lay gërëm ci waxtaan wi. jërëjëf Babacar. jërëjëf mbokk yi yéen doog jàmm.